jàmm da ngaa jàmm voilà mbokk yi ba tey mu ngi noonu euh, fii ci département de Pikine euh, ba tey ñu nga euh, waa sama sa a ñu nekk yéen fii ci département de Pikine di def benn xawbaan boo xamante ne porte à porte la jiital seen investi waaye itam jiital seen tête de liste nationale di Barthélémy Dias ànd ak ki nga xamante ne itam mooy Bougane Gueye Dany gis nañ les jeunes fii si ci waa bu sa bopp ñoom ñoo nekk fii si Pikine waaye itam. voilà ñu ànd ak euh, l'intercoalition euh, waa jàmm ak njëriñ euh, waaye itam ànd ak l'intercoalition waa takkuwàllu Sénégal ñoom ñoo fi nekk takkuwàllu Sénégal gis ne les spécimens sont là spécimens yu marron bi marron beige c'est pour APR ñoom ñoo fi nekk ci Pikine dañu intercoaliser wu ak ñi mbokk yi ba tey euh, fii ci euh, Pikine actuellement. Ah, fas yéene def benn tour euh, aujourd'hui ci biir Pikine pour s'affronter ak askanu Pikine Pikine Nord Nord Saf la Pikine Ouest gunge euh, ñi nga xamante euh, la sàmm waa sàmm sa kàddu euh, jiital gis ngeen oto bi njëkk bi c'est l'investi le candidat Diamak Sénégal fii ci. Pikine waaye itam moo ànd ak tête de liste nationale euh, waa coalition Sàmm Sa Kàddu nee naa la fi intercoalition la ñu def ndax euh, biir Dakar yëpp waa Sàmm Sa Kàddu euh, waa intercoalition bi di votel ndax nag trois coalitions ñoo dajee mooy waa Jàmm ak Njëriñ waa Takk Wallu ak waa Sàmm Sa a gis nañu am na yenn ville yoo xamante ne dem nañ fa si sous-région di Dakar Sénégal waaye itam foofu Takk Wallu ko moom wala a Jàmm ak Njëriñ moo ko moom lu mel ni Tivaouane keroog gis campagne ba ñu saafoonte fa ki nga xamante ne moom la président Amadou Ba la coalition jàmm ak njëriñ loolu yëpp ko waral parce que am jàmm ak njëriñ moo fa moom ndax jàmm ak njëriñ lañ fa war a voter euh, intercoalition lañ fa demee waaye boo ñëwee fii Dakar euh, sam au lieu que ngay votel euh, jàmm ak ñaxiñ wala ngay votel takku wàllu Sénégal mais gom euh, sa kàddu ngay votel ndax intercoalition la boo demee feneen par exemple lu mel ni Koungheul euh, boo fa demee APR la boo demee Kaffrine itam takku wàllu la moo ko moom parce que xeex ak PDS ñoom moom euh, takk wàllu Sénégal moo nag moo waxal intercoalition bi boo demee Fouta itam lu mel ne jeune Podor euh, foofu itam waa jàmm ak ñaxeñ ñoo fa moom waaye itam takk wàllu Sénégal mu ngi foofu mu nekk deux a foofu noonu itam doo votel ki nga xamante ne mooy waa Sàmm Sa Kàddu mais waa jàmm ak ñaxeñ nga fay votel wala waa takk wàllu Sénégal ngay votel mbokk yi euh, ba tey ñu ngi si dernier semaine euh, de la campagne ndax aujourd'hui euh, c'est dimanche et c'est dimanche prochain incha allahu rabbi lu waay doon jaay tey mu làmb lu waay doon jaay jour boobu lay làmb parce que nag loo bëgg a nit bëgg a nit jour boobu boo jotee du ci urne bi ba votel ko ñoo takk sa encre indélébile donc daa mel ni yow li ko doon jàppale yëpp égal à zéro parce que jour boobu rek moo ëpp solo su jour yëpp ndax nag il est temps que la jeunesse sénégalaise il est temps que l'entraînement générationnel bi ñu continuer ko il est temps que jeunesse bi tànnal seen bopp ku ñu bëgg comme nu ñu tànnalee seen bopp président bu ñu bëgg a fal ko il est temps que ñu tànnal suñu bopp pouvoir législatif boo xamante ne ñun ko moom ñun ñoo ko tànnal suñu bopp moo waxal nag euh, élection bi di wax a élection bi dans toutes les espèces humaines que ça soit euh, soit Pastef que ça soit sàmm sa kàddu que ça soit jàmbax jaañ que ça soit takk wàll que ça soit ainsi de suite ah, ñi bi moo fa gën a ndax nag jeunesse moo war a a yor réew jeunesse moo war a a defar réew waaye jeunesse moo war a a do am dogal ci réew ndax nag ñun ñoo ñun mi moo waxal nekk le 17 le soir du 17 novembre incha rabbi ñu fas yéene tànn des xëy député ñu fas yéene tànn des bons députés ñu ñi nga xamante ne dina mën a yor ah, ah, dina mën a lijjanti askanu réew mi dina mën a waxaal réew mi lan mooy seen soxla ndax nag a mi du Dakar kese sous région yi ñu nekk si ay soxla yoo xamante ne eh, kenn moo xamul nu mu toll surtout problème santé tey jii ne da ci dëkk bi àll bi partout fu ñu caax da ngay gis ni nga xamante ne ah, jigéen bu matoo sax ah, pour ay charrette lañ ko teg pour la ko ci beneen dëkk vraiment l'état du Sénégal def si war a jël ay ay matuwaay bu baax a baax te loolu yëpp ci assemblée nationale bi lañ ko war a tey ndax nag assemblée bi ah, foofu lañ koy voté waral ñoom ñu war a choisir ñoo xamante ne pas ay des hommes politiques mais des vrais hommes d'état des vrais hommes gouverneurs ñi réew mi moo leen soxal réew mi a jóg lépp loo xamante moo si baax luñ fa fi fas yéene voté sans autant que sans autant que li leen fa a voté a nekk 2050 ndax nag a euh, bi sonn na population Sénégal sonn na te lépp la ñu war a wàññi lépp la ñu war a defar lu ñu xaar lu ñu xaar ci euh, état bi nii dafa bari lu ñu xaar ci état bi dafa bari de 2021 à 2024 lu ñu doon liggéey lii moo taxoon jeunesse di rayante lii moo taxoon jeunesse gën leen di jaante ak la force de défense et de sécurité donc nag bu ñu xasee ba au le soir du 17 novembre 2024 incha allahu rabi yal na choix bi bon un très bon choix nga xamante ki nga xam mooy président de la république du Sénégal Bassirou Diomaye Diakhar Faye mënul liggéey nag parce que assemblée amul ndax assemblée mooy doxal donc nag na bon choix boo xamante Sénégal yëpp dinañ ci mais xawatina ñu mbokk yi ah, ci caravane ba ah, ah, ci département de Pikine waaye ñu ngi nii génn Pikine ouest di dugg Pikine est ba tey ñu nag yéen waa sama sa kàddu ñu jiital ki maire de la ville de Dakar honorable député moom moo jiitu moo nekk waaye itam gis ngeen caravane euh, bi dafa gudd macha allah yàlla xam tam la présidente Anta Babacar Ngom moo nekk si ginnaaw waaye itam ki si topp mooy le président Bougane Gueye Dany ak ki nga xamante ne le président euh, des serviteurs Pape Djibril Fall gis ngeen barke démb fale ci dëkkam Thiadiaye moom itam def na fa liggéey bu am solo nee naa la nit. amul fudul sa fief nit amul fudul fi nga juddoo waaye fi nga fi nga fi waaye nit amul fi nga xamante ko voté si jàmm ak salaam gars yi ñu mun ko exécuté ñu mën a liggéey ko si jàmm ak Sénégal en avance ndax nag Sénégal ñun ñoo ko bokk Sénégal ñun ñoo ko moom kenn bokk ko Guinéen bi du ñëw nekk fi député Nigérien bi du ñëw nekk fi député donc c'est nous la ku fi gagné majorité nationale na nekk majorité boo xamante ne majorité bu mature majorité bu responsable waaye majorité boo xamante euh, dina am benn satisfaction ci Sénégalais yi voilà yaakaar naa ni mbokk yi ba tey ah, ñu nag yéen fii ci département de Pikine waaye nag buñ fi génnee eh, jubal fi nga xamante ne eh, mooy eh, Guédiawaye ndax nag boo nee Pikine wax Guédiawaye wax Parcelles c'est des trois communes yoo xamante ne ñoom ñoo ñoom bokk ndey bokk baay ah, buñ fa génnee itam ah, suba incha allah ñu dem dans le zone nord du Sénégal daanaka est ouest bi la ñu nekkoon depuis campagne bi commencé on avait commencé par Tambacounda def nga woon ko nga xamante ne xamante ni euh, buñ ko paree dem zone est bi yëpp waaye suba rabbi ñu sàmm mu nga fas yéene dem euh, zone nord du Sénégal boo xëyee nord nag nga commencé Saint-Louis Sénégal euh, jógee fa dem bi nga xamante ne mooy Fouta jógee fa dem Podor waaye nag dem Ndioum ci dëkkoo monsieur le ministre Cheikh fa paree nag sàmm sa dem fan dem fan mooy fu bugaan ngay dana ne woon di aabo supérieur ne mooy ah, Guédiawaye fekk si fa waa Sama Saka bi fa nekk waaye itam fekk si nga population sénégalaise yi fa nekk mun a wax ak ñoom xam lan mooy seen problème ndax nag gox boo dugg am na ay problème ki mooy Habib Mboup élément baax la fay dugg mooy parce que nag le pouvoir lan ban ban ban pouvoir la waa assemblée les am mooy ko ñoom ñoom ñooy voté le de la république pouvoir exécutif nga xamante ne moom mooy exécuté nañu xam lan mooy seen wareef ñu def ko ñu bañ nekk ci benn grand grand bugaan parce que bu lan ah mais pass bi soxlawul ordonnance deux cent cinquante lay jar dama koy damay wan gars yi ne leen nañu moytu damay wan gars yi ne leen nañu moytu duñu duñu euh, moo tax duñu duñu euh,